توب ننتي يا بوير تبول فالك ويسك فرجك مصطفى سوف كون داي لاج كارت سي كانديداني ويو لا يا ود نيا داوات نيا داوات مصطفى بوكي نيغي لين نيو نويو تي تورو دائره اهل الصدق في المحبه والولاء للشيخ القديم ñi ngi dalal suñu gan yi di rafetlu seeni teewaay di rafetlu jataay bii ñu teew muy jataay boo xam dañ koy amal ci ndigalul cheikhu ahmad muxtaar ataalallah umra wa afqa muy jataay boo xam ne li ko waral mooy wattaayu bis bi nga xam ne ci la seyxul xadiim dellu ca boromam muy bis bi nga xam ne ci la sëñ tubaa ñaanoon boromam ne ko nanga def bis bi gën samay bis muy bis bi may dajeeg yow mu mel ne kon mbokk yi bu ñëwee teew fii ci genn kër ci kër Seex Moustapha yi dafa mel ne kon bëgg nañoo jariñ mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ fi fekk bu ko defee ci turu mbooloo moom ñi ngi sant kilifa yi fi teew yépp dale ko ci sëriñ Ousmane mi nga xam ne moo jiite lajnatu saqafa al bi murid ci turu culture gi ne ci kër gi ak mbooloom daayira bi ñoom ñëpp ñu ngi rafet lu jataay bi di leen ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala ngeen dajatee ngërëmul sëriñ Touba. kon mbokk yi ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaan ngeen may ak teewul ak diglu ndax ganu kat ku ko am la nga koy tereel mooy diglu ko ngir fas yéene cee jar yi kon mbokk yi maa ngi tënk foofu kàddu yi di jox sëriñ Ahmadou Ngiraan mu fas yéene ubbi jataay bi. bu noppee mu jox sëriñ Basiir mu wéyal waxtaan wi. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala bokki jullit yi bokki talibe yi. ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar. di jiital ci ziar bi kilifa yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa. di ñaan sunu borom dolli ko dëgëral li mu yéene liggéey sunu borom def ci lu kawe njort. di nuyu bu baax kilifa. daarul xuddoos di sëriñ ahmadul moxtaar ak jëwriñu kër gi sëriñ cheikh mbàkke madina di nuyu bu baax a baax jëwriñu daara ji di sëriñ cheikh mbàkke ibrahima ak mbooleem njaboot gi mu bokkal cheikh ibrahima ñépp ci turu sëriñu Ousmane mbàkke mi jiite diiwaan bi di nuyu mbooleem bokki taalibe yi nekk ci jataay bi ñépp Mak ak ndaw di nuyu bu baax soxna khadijatu Ibrahim di ñaan sun borom doli leen taxaw doli leen a ba li leen mag ñi baye ñu di sam yal nañ ko yobbu fu gëna kawé kawe fa mag ñi doon mebeut tem and ko ak akuk tal barakat Cheikhul khadim tay ñu ñew fi ci turu diwan bi mu lëkkale mboolem bunt këri Cheikh Mouhamadul Moustapha dajale mboolem njaboot gi ci ndigalul sëriñ Ahmadul Muxtaar ci njiital sëriñ Ousmane ren ñu dolli ci liggéey bi dugg ci biir ëtt yi genn njaboot lañ benn ëtt la it muy ëttub Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye ngir nu gën a soññante ngir nu gën a dollente ngir ñu gën a jegewante ba jàppoo gi ak bennoo gi Cheikh Mouhamadul Moustapha bëggoon ci njaboot gi mu gën a am nde am na ba noppi waaye mu gën a dëgër tax na ñu dolli ci programme bi wàcc ci ëtt yooyu yi ànd ak njaboot gi fàttalante dollente ngir gën a waaj rek jëm ci bis bi nga xamante ne nii bis gënu koo rëy ci ñun ndono la it luñ fi fekk te war koo sàmm nu gën koo jekku ñu aw jataay waxtaan yi ñu ni nan waxtaane ab yar muy defar jikko te Cheikh Mouhamadul Moustapha mi wuutu Sëriñ tubaa ndono loolu jëkk wàcc ci loxoom mu fekk waajuram wa Cheikhul Xadim doon ne ko ca yonent bi sallallahu alayhi nu mu doon yare jeexitab li yar yi ni mu feeñe ci njaboot gi loolu luñ ci jublu mun mooy nun nu am ci luñ ci jànge nu siggi xoolaat waajur yooyu yi nga xamante ni ñoom lañu wóotu yor seen ndono dëkke seenub gent di dund ci seen barke di sagu ci seenub liggéey melokaan yooyu yi ñu mel nu jéem koo def ci suñ bopp kon temub waxtaan wi tërbiya la ñuy waxtaane waaye ñu jeexale ci yarinu Cheikh Mouhamadul Moustapha ndax ab liggéey la bu sëñ Tuubaa tàmbali woon sëñ mootu bi ñu ñëwee ñun ñëpp gis nañ lim ci def am na njabootu boppam am na ñu mu doon ci sëñ bi am na ñu ko dab ci liggéey bi yooyu yëpp mënees na caa génne ay jëmm yoo xamante ni mënees na leen a joxoñ te génn kënu caa yay njabootu boppam gi nga xam ne moo leen njaboote muy jëwriñam yi nga xamante ni nii ñoo soqi ko ci moom loolu ci lañuy jox sëñ Basiiru Sekk mi. mu andil ni ci lu ci xaj ci waxtu wi su noppee luñ ci dolli nu dolli ko ci kon nu ànd teewlu rek déglu sëñ Basiiru ci tomb yooyu mu bëgg a waxtaane bismillah bokki taalibe ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Cheikh Mbacke Ibrahim mi toog ci seen gannaaw ak sëriñ Ousmane mi yore diwaan bi ak mboolem seeni rakk ak ñu nekkal ci jotaay bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci seeni tur di nuyu bokki taalib yi ci sunu kanam yépp ak mboolem fub jullit mën a ne di jégalu bu baax kaddu yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati ci kanam kilifa yi waaye muy kàddu yu ndigal ci sëriñ bi itam waxoon ne laa tafxaloo shay'an bi xayri isni fal isnu sartun fi qabuli sahni kon ndigal liñ ci am moo tax ñu di ko yëkkati sëñ Ahmadu ñu waxoon ne dañuy yem ci tombub tarbiya lan mooy tarbiya muy wàllu yar yar sunu borom bi mu bindee àddina lépp liy doxal àddina yar mënu caa ñàkk moo tax sunu borom yónni ay yonent yonent yooyu mu boole leen ak malayka malayka yooyu sunu borom bind leen ci leeram ngir man koo yónni ci ay ndawam moom la alxuraan di wax laa yaxsuuna laaha ma amaruhum malaaka du mooy ndigalal boroomam kon ñooñu lay mën a yónni ci ay yonent yonent yooyee nag ñoom it di yar seeni àndandoo ak seen njaboot ndax ci xam-xamab sunu boroom la seen xam-xam di bawoo te yàlla moo tàggat ay ndawam yónni leen xam-xam boobu euh, yén siye bi mu fi jógee itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek la ñuy teew si ndax mooy mujjug yonent saxaaba yi jël yarinam mbooyo wiyal ko àddina nag di dox yàqu-yàqu di gën a bari mu mel ni itam diine ñi koy dunde dafa ëpp ñu koy dundal ba tax na loolu di wàññiku di wàññiku ba suñu jàmbar yi agsi ñoom it jëlaat jiital yar teg xam-xam ndax li indi jaawale gu bari ñu bari dañoo jiitaloon xam-xam teg yar te xam-xam bu amee te yar amut su boobaa euh, ba tey yëf yi du mën a jag ña ko suñu borom bëgg moo tax ku mel ne Cheikhuna Ahmadul Xadim nag bi mu ñëwee dafa jiital tarbiya teg ci xam-xam. ndax xam-xam ak yar moy tax nit ki mana xam fim mu tankam ndax jambar ju yarut jambar ju amut xam-xam te ñar ko manam borom xam-xam day ñew jariñoo ko moo bi dafa la daan jangal ba nga ne ar mu yar la ba nga ne neur mu yela bar nga ne jar kon lolu moy thème waxtaan wi nga xamne ne mom allah lañ bëgg a serigne bi nak ne bu dee tarbiya wacc wayen ci alquran mooy at bi tabi sabila man araaba ilaya maanaam na nga topp yoonu gaa yi jëm si ci man yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yar ay taalibeem ci kem seen diine ak seen àddina moom la sëriñ bi wax naan kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yu rabbi ashaabahu fi diinihim wa dunyaahum ala asabi ma yaraahu kem ni nga xam ne noonu la gisee nit ki fi wàññenam nekk moo xam ci diine la wala ci àddinaam fa la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko fa fekk daa ko fa yar ba taxoon ñu doonoon nit ñu ràññ ko doonoon kuréel bu néew boo xam ne lépp luñ mas a song daan nañ ko doonoon kuréel bu néew boo xam ne diine bu ñëwee ba fii ñoom kuréel booba ñoo tax loolu yi nag yarub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekkoon ci ñoom moo tax ñu man ko kon loolu nag moo tax bi Serigne Touba ñëwee jël yar moom it daal koy teg ci kanamam xam ne mënta ñàkk ci àddina mënta ñàkk ci nit ku war a jariñu ci àddina ak àllaaxira moo tax mu ne baana baana xayra ma bihi isdaana al fata tulaasimul adabi ay sumaata nee na biir na li gën ci nit ki mooy taar bi gën ci nit mooy nit ki waaj waajale boppam ab yar taxoo ab yar ak fum mu mën a jëm xeeti yarin yooyu nag suñu demee ba mel ni dafa xaw a néew ci taalibe yi su boobaa day mel ni li sëñ bi bëggoon day am lu ca des te la cay des nag ci nun lay doon moo tax fa kull man bi xayrihi raamal wasuur li xadrallaahi fa qumrun laa nabil ku bëgg àgg ci yàlla te làmboo akub yar nee na dof nga boo xam ne amoo am xel kon ndeke lii taxam nit ki mën a àgg fu mën a jëm ak lépp lu mu bëgg ci àddina ak alaaxira ab yar moo koy maye kon nag bokk bu ñu demee ba ab taalibe dem fenn ñu di ko jaawale ndax ab taalibe la wala bala ñoo xam ne ab taalibe la moom kon dafay mel ni bala ñu koo xam mu wax ko su boobaa day mel ni yarub Sëriñ Tuubaa day xaw a wàññi ko ci moom ndax Sëriñ Tuubaa comme yar boo ko séenee muy dox danga ko xam Cheikh Mouhamadul Mourtala wax nañ ne bii jamono Sëriñ Modou saa yoon wi njëkk a demee Ndar bi mu ñëwee eh, nuy ji Sëriñ Modou Sa Taïf mu ne ko dégg naa ne demoon nga Ndar mu ne ko waaw demoon naa mu ne ko xanaa ba nga demee xam nga né bokk ak ñom dé ne ko musa gëna ci Allah mu ko yow rek wara tukki ndax fo dem kën du la mëna soppi da nga leen mëna kon ab talibé ndekete mag ñi buñ masaan noppi ci yow fo mëna dem ko fu fekk da nga koy soppi waye kën dootu la soppi ah, bu ko défé sëriñ bi itam daal di wax né wa nataxu bi annahu yakunu sulusay diini fa fadluhu yabin néna na yar xaw tuut rek mu doon ñetteelu ciéru diiné ba tax mënul ñak ci nit ki bokk na ci yar bobu nak dafa am sayir ak batin mu yar bi nga xamne ci ngay ànd ak nit ñi ak yar bi nga ànd ak sa borom lolu moy yu bari yo xamni xagn na lim gi du xacc waxtu yi da nañ ci lim tuuti rek munel ba ci jiitu rek fa xudda min usnul quluq al alxayaau fa sa'i tafuq ba ci njëkk moy rafet jikko moy jikko ju rafet manam mom lañ wax makarimul akhlaq nga xamni mënul ñak ci nit ki mom la serigne bi daan def ci ay talibem te makarimul akhlaq nak la ci jitu moy ñàkkatooñ ak jéggal ku lay tooñ ak jox ku lay xañ ak jokk ku la dog te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne innama bu'istu li ma makarimal axlaaq li tax yàlla yónni ma mooy ma mot li jikkoy makarimal axlaaq kon dafa mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mission mooy yar nit ki ba nga xam ne àddina dara du yàqu xam ngeen ne bu tooñ amut mucc dana am waaye bu fayu amut noflaay dana am te sëriñ Touba nee na boo joxee ki lay xañ yàlla dana la dolli wërsëg boo xam ne da nga fàttalam la xañoon nee boo jokkee dog nee na yàlla dana yokk saw fan dolli la barke te nee na boo dee jéggale da nga not say noonu kon xam ngeen ne loolu muy lu am solo loo xam ne bu ko addi bu ko addina sépp maase woon nekk ci tilbinaar ak police dana noppalu kon mbooloo mi fay daje xañ na kon léegi dootuñu fa dootu fa daje kon nag bu ñu demee ba foofu fees dell nag police fees tilbinaar yi fees war nañoo dellusiwaat ci yar Serigne Touba ni mu yare woon mag ñi sëñ Modou Lo Dagana wax nañ ne bi ñuy dem gànnaar. di fekki sëriñ tubaa ay wuyu dogale nañ ko xeex ak moom xeex nañ ak moom ba damm baaraamam te booba mi ngi jaasi te booba tul na bi mu ñëwee ci sëñ bi bi ñu koy leeral ñu ne ko xanaa yoroon gànnaay moo ko ah kay ci Serigne Touba ñàkk fayu ci Serigne Touba la ñàkk fayu te booba xeex naa ñoom bañ dama baaraamu sànqale ñam te booba mënoon naa fayu kon mu gis ne itam kii fayu kon xañ na am na fa laay amu fa waaye bu boobaa loolu lépp nag li koy mën a maye moy fondement yar bu baax bo xamne dañ lay tek xamal la sa borom ndax Serigne Touba lim daan xamal nit ki lim daan jëk def ci nit ki moy jangal ko tawhid ba ci ay téréem sax dalay jangal tawhid ba nga xam ko ndax bo xamne yalla fepp fo nek ma nga fa lepp lay def nang ko ci baye xel te lepp lay baye xel ci yalla rek manam doto defati mukk lo xamne ab safan kon loolu Serigne bi mom la daan jëk def ci nit ki benen ba ca tagi tam mo fexé ba li wax qashirul amal. daana gàttalal fexe bi nit ki gàttal ay mébétam di yem ci li ko yàlla wërsëgale loolu it bu ñu ko defee kon nit ki dootu xër ci alal ba am lum koy jaral kon nag bu ñu demee ba jamono jàq ba nit ñi kenn ku nekk alal bari lum la jaral war ngaa delluwaat ci yarub naa Ahmadul Xadim ci nim yarewoon mag ñi Cheikh Mouhamadul Moustapha mii wax nañ ne nit xëy si na ko ne ko mbàkki dañoo réerut bi te añ amuf boobu moom it kër gi doy waar lool. lam wax ba néeg bi mooy jëlal doom bi dem ca magasin ba ca gerte ga lu mu ca attan mu yanu ko dem jaay ba néeg bi dem ba ci yoon mu del siwaat ci Cheikh Moustapha ne ko day cooroon si gambu na te yow liggéey fàggu war la boo ko joxee lu ñuy bay mu ne ko yow ko yaa ngi may bëgg a bett ndax reer nga biig te ndékki nga te yaa ngi yaakaar añ daan ne te ndekkiwut te yaakaarut añ bu ma ko bàyyee ba xiif bi jàpp ko bañ suul ko ci suuf ba ëllëgee bañ ma suulee ci suuf ma jël jiw yi ko ci suuf lu may lay sans kon foofu la nekkoon loolu moo doon a yor mag ñi nga xam ne dañoo amoon xasirul amal maan dañoo gàttal seen i te daawuñ gànt soxlas kenn kon loolu itam buñ demee ba jamono mel nii dana ci dana ci bàyyi xel ñu war a delluwaat foofu bokk na ci yar bi nga xam ne moom lañu ñu ànd ki nit nit ki yar ak njabootam mooy yàlla bu la dénkee njaboot daf laa am mission bu mu la ca sant sëñ Tuubaa nee na bokk na ci euh, adabu shahir nit ki yar ak njabootam ba bu ëllëgee mu man caa ñu man koo fàggul aw yiw waaye itam njabootam sàmm seen bopp ba nga xam ne duñ mën a tooñ ay dëkkandoom ndax kat am na ñoo xam ne ñi ña nga ca lañ war a nekk waaye seenu njaboot toujours ñi ngi ci lor seeni dëkkandoo loolu Serigne tubaa dafa yaroon mag ñi ba kenn ku nekk yar njabootam am na menn mag mu doon laaj. Euh, kenn ci ay njabootam mu ne ko bu doon góor a mata dal jàng waaye lañ ci teg mooy ba muy jigéen nag ba muy jigéen nag nga xam ne góor ak jigéen ni leen di yare ci yarub diine Serigne Touba amu ci woon xajj ak seen ñooñu ñoom ñëpp la ko boole woon. beneen ba ci tege itam daana jàngal nit ki liggéey ba nga xam ne dootu soxlaalati kenn dara ndax nit ki bu xamee diineem xam boroomam te soxlaalut buur dara fu mu nekk dana fa mën a dëkk léegi nag bu ñu seetee ca dëgg-dëgg xool ne alal ji na. wërsëg yi bari na te noppal war nañoo seetaat delluwaat ci njàngaleem sëriñ bi mag ñi dañ daan bay am njël yar seenu njaboot di jaamu seen boroom yem ca la leen yàlla jox ñun nag léegi lépp yokk na te mënatuñoo noppalu kon nag su boobaa war nañoo delluwaat ci njàngaleem sëriñ bi sëñ bi itam ba mu lay yar taalibeem yi daf leen a te daf leen saxaaba yi mooy seeni baay ci diine ñooñu nag mu ne alxilmu siimatuhum wala moo day danahum doona dawaahi wa inkaaril maqaamati xam-xam ak lewet mooy seen màndarga lewet mooy seen màndarga waaye xam-xam mooy seen tegtal waay waaye daawuñ weddi kenn benn maqaamam nit daawuñ ko weddi loolu boo ko seetaa ci mag yi Serigne Touba yi daa nga ko gis ci ñoom ñoom duñ bàyyi ba tiimi téere waaye seen jëf ci ngay xamee ne boroomi xam-xam lañ te képp ku dem ci ñoom dañ leen màggal ba nga defee ne yow boo amul xel ak xalaat dangay jàpp ne dañu abu xam-xam fekk wayef gi leen Serigne Touba jangal ci lañ nek bokk na ci lim def ci ñom itam bayyi lo leen adina moy sohadu fi dunia manam deddu adina deddu adina nak bokk yi am nañ ci jaawale gu mag go xamni leg leg mu ñew ci lenn ci ñi gatt aliw dañu japp ne bayyi sa bop la wala sagane li nga wara def waye dedet deddu adina moy lepp def rek na yalla tax lépp looy def nga bàyyi ci xel yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa a daf ne adduñ addunya sijnul mu'min wa jannatul kaafir adduna mënta neex ci jullit ndax boo amee alal am li nga war a am lépp yàlla sunu borom daf la cee sant foo yam foo xam ne sañoo ko weesu ak loo mën a am bu dee wér la sunu borom am na waxtu yoo xam ne bu jotee moomatoo sa bopp sunu borom a ko moom mënoo ko ko ñàkk jox moo tax adduna kaso la ci jullit moo tax Serigne Touba wax na ngeen fexe ba. Euh, tib yi bu leen bu leen yàq aw ñam yàq aw ñam nag mooy lekk ba regg te réesaloo ko ci jaamu yàlla bu njëkkee itam ci Cheikh Mahamadul Moustapha mii nga xam ne tey yàlla na yàlla sunu borom dolli na ko fayal tey bu tuubaa dee tuubaa mooma tey bu fi benn seex amee mbooloo ñu topp sa gannaaw gannaaw sëñ Tuubaa Cheikh Moustapha la loolu li ko ko may nag mooy dafa am lañ ko fàgguloon dañ koo fàgguloon ab yar ak xam-xam fàggooguñu ko fàgguloon nak kenn ku nekk ci nun ni warna la ci sa njabot ndax kat lim def lepp du xar bax an japp ne du xar bax amna nimba lol waye nak sacrifice na bopam lol jëfandikoo lako Serigne Touba xamalon bu wér and ak lako xam lam ko xamalon ci yalla lepp mu ko ndax lenn lu nekk amna fam ko dante bako mag nuyo ne na ngeen def mu ne ko Mbàkke day ñi ngi sante Serigne Touba bax mu ne ko war ngeen ma ca boole ndax bu Touba de Touba mana Touba de Touba mën a ne ko bu fa sëriñ ba ñëwutoon nu muy def ak yeneen dëkk yi mu a ko moog yépp a yem mu ne ko bu fa nag mu ne moog yëpp a yem mu fekkoon ne ni fu lijjantuñ ba mu nekk ci ay loxo yi ñëpp ña ci ñi mu war a nekk kon su boobaa nu ñu def mu ne ko moog yëpp a yem mu ne ko nag bu Touba tubaa Touba dara laaj mooy lépp sëñ Touba ak 1400 bi 1912 bi mu ñëwee daf koo daal di yebal Touba mu yeesalaat kër yi yeesalaat béréb bi. ndax serigne bi tubaab yi nanguwuñu won ku fi yëkëti sakkat bi serigne tuba nekk ci géej Cheikh ma Cheikh Moustapha moko yassalat kon nak bokki bu démé ba jamono tollu fi mu melni ni rëg-rëg ji ak ciowli bari na waye war nañu delu wat gannaaw ñun xam puñu tek sun tànk kan moy Cheikh mohammed al mustafa moy ki nga xamanteni bi liko yàlla santon def na ca lam man te mësta def lamuy tere moy ki nga xamne ne daray sëy daray lu mu yaakaar ci serigne bi lo xamne ne mas na taxa def lo xamne lako tek ci bakkan musul am musulaam lépp lu def ci xam-xam la ko teg ak xel mu rafet su boobaa nag loola lañ ko war a royee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa kat ci loolu rek ci lañ ko doon roy mooy jikko ju rafet ci la andi woon diine fi mu ko bëgg a yóbbu fépp Cheikh Moustapha itam nag fu yoon wi àgg tey xelam moom yi ak pas-pasam boobu yi ca la ko fa yóbbu kon nag buñ demee ba jamono niru ni coow li bari na évente yi bari na li ñuy wax te wérut bari na su boobaa nañ siwaat njàngaleem Cheikh Mahamadul Moustapha nga xool ni mu yare woon ak njabootam ak ni mu yare woon mag ñi njëkkoon a ànd ak moom ak ni nga xamante ni noonu la yare woon mbooleem rakkam yi nga xam ne ñoom la àndaloon rakkam yii mu yar rek ak ñi sëñtu Tubaa yar boo seetee ca dëgg-dëgg xàmme wuñ leen rakki boppam yi te ku sëñ Basiiru doo Cheikh Mahamadul Amin doo Cheikh Mahamad Fadel doo sëñ Abdou borom dër bi Cheikh Moustapha la li tax mu man ko lu Serigne Touba def ci moom la te loolu la ca jiitu mooy ab yar ndax xam ngeen ne metti woon na lool turu njañ wi ba mu koy am booba mel melokaanu dong ngir bëgg a liggéeyal Serigne moo ko taxoon mu mel waaye Serigne Touba moo ko waxaan ne ko yow kat dañ la dañ laa yar nga bëgg nga tënku ci sunna ba nga tënku ci sunna nga xam ne booba loola moom la la la la daal di euh, daal di jaar ci yoonu sunna sensé colin woowee sensé melokaan woowee kon nag loolu itam bu ko defee bokk yi dana doon bind boo xam ni danañ ci mat a dellu siwaat waaye xam ngeen ne Cheikh Moustapha itam bu fekkonte ne bii defaruñ ko dëgg-dëgg wuutu gi mu wuutu Serigne Touba kon lu bari dana sooxate boo boobaa liggéey Serigne Touba dana nax saay waaye nag sëriñ bi xam na ne bi bi Cheikh Moustapha bi mu ko waree wuutu itam li war a def ci moom lépp def na ko ci moom kon loolu nag liñ ko ciy royee mooy képp ku yor njaboot nga sonn ci moom nga sonn ci moom mënul ñàkk yàlla bu la joxee njaboot rek natt na la. alxuraan nee na alal ak njaboot fitna la ci jaam bi ko yàlla jox waaye nag boo ko nangoo nangu caa sonn mu doon ak jaamu yàlla ci yow ndax boo fi jógee danañ la ñaanal aw yiw te danañ def lu baax loo xam ne lii ñu koy defee ca ci sa sa ci sa pas bi nga defoon ci ñoom te booba waa foo nekk tuyaaba daan la fekk ndax am na ñoo xam ne ñi kat imaam Malik dafa waxoon ci téeréem ne bu leen rusloo seeni waajur ci biir bàmmeel bu leen rusloo seeni waajur ci biir bàmmeel ndax la ngeen def dañ leen koy won kon képp koo xam ne kii am nga kilifa goo xam ne kii jóge na fi war ngay bàyyi xel moom euh, ca li ngay def ngir wane ni koy garal Cheikh Moustapha nag lim njëkkoon a def bokk na ci li ñuy wax mu saawara maanaam nangoo di soo nangu xelam ñëpp ndax kenn ku nekk daana ñëw ci moom am na ku ma sa ñëw ci moom ne ko dama laa yërëm ci yenn bi mu ne ko loo ma ciy dimbalee mu mel ni dàggag mu ne ko danga may yoral sa bopp boo ma yoralee sa bopp ndax ñëpp ña taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp maa leen war a yor danga ma yoral sa bopp rek sama waajur nettali na ma ne ma bi mu fiy nekk ku fi masaan jógee booba jamono ji neexut mag bu mu taalibe bi masaan nelaw mbubbam lay jël ñu sànge la ko am na ku faatoo woon Taïf nee na bi ñu ko dencee ba mu joxe mbubbam ñu sàng ko ba noppi kim dee daf ne ko daanaka day yëre li ma ci dese day fekk booba jamono ji comme ni mu demee woon dañoo xawoon a tegaloo mu ne daanaka yére de li ma lu weesu lii ma ci sol li ma ci dese bëreetul waaye ñu toog ci diir bu néew am taalibe bu jógee Gàmbi ñëw andil ko ñaari piisi mbasin waaye daf ko téye na ko ndax jaaral ne ko fañ ko war a jaarale muy duwaan mu nakk nakal mu ne ko dellul jaarale ko kooko demaat ba ca poste ba mu wax ko tubaab mu ne ko fi nga jógee moom nag mu ne ko dama ko yotoon saab sëriñ mu ne mën naa ko delloo si jaarale ko fii mu laaj ko fa sab nekk wax ko ko mu ne ko maa la tax a jóge foofa ba fii mu ko waaw mu jëkkati beneen piis ne ko ne ko maa ko ci dollil bii may naa la lépp kon loolu bi ko bi mu ko àndaat sëñ Modou Sa wax ne ko dénk naa leen ngeen di sàmmonteeg luwaa yi leen tënk ci am réew ndax buur deesu ko jalgati kon nag buur deesu jalgati ay ndigalam ndax lim digle nees na ko kon nga gis ne kooku itam ko amoon expérience la ci wàllu àddina nga xam li ko am cër bi mu amoon ci sëñ Touba taxutoon muy ñaaj kon dafa bokk ci xel mu rafet nga and ak nit nit ñi ci kem lay seen xaq ci ñoom bokk na ci yërmande jum amoon wax nañ am na benn otoom boo xam ne itam colon yi ci newoon ci eh, jurbeel kenn la ci woo ko boo ma mënee andi oto sumul ma séddale ko fukki fan ak juróom nga fukki fan ak juróom yu ne nga andil ma oto ma séddale ko ma jox la oto bu ndaw bi wax nañ ne bañ juboo ci loolu ba andi oto sumul ba yóbbu ko sëñ Basiru ak sëñ Chagaay ne Fatma bi ñu ko yëgee ñu waxtaan ci jàpp ne lii tubaab bi jëlee oto bi sëñ Manoune Souare néew na ñu ñëw doon wa sëñ Basiiru doon waxtaan ak moom ne ko dañoo defee ne day tubaab bi lim jële oto bi xaw naa néew tuuti waaye wax nañ seex Cheikh Moustapha dafa dugg ci biir toogub diir génnaatut ba bëgg nañ ne ko ah da ngeen toog ba tey mu ñaaw ne ko ah Basiiru kon man yéen da bëgg a bett ne ko dimbale benn taalib Serigne Touba moo ma gënal oto bi dimbale benn taalib Serigne Touba moo ma gënal oto bi kon kooku foofu la nekkoon te booba bi mu def loolu dara amul kon kooka xalaatul woon a denc kon loolu itam bokk yi buñ ko ci bàyyi xel dana am solo lool. moo ne lim doon def loolu lépp nag teewut mboolem ñi yoroon seeni taaw ci njabootu sëñ Tuubaa gi moom lañ ko joxoon mu di leen yar ndax daara sëñ Maxtaar Aliloo ji nga xam ne moom la defoon 1915 ci tundooti mboolem taaw yi ñi ñi ñu ngi ko joxoon yëpp fa la leen yóbbu ku mel ne sëñ Abdou Karim sëñ Fallou sëñ Modou Baara sëñ Modou May sëñ Mbakke Madina ñoom ñëpp. ak sëñ Cheikh Gaynde Fatma ak sëñ Abdou Salaam ñoom ñëpp booba moo leen yor di leen jàngal la war ca daara ja mu di ko def te yàqutoon liggéeyub jumaa ji dara yàqatu ko yàqalu ko woon ci li war a def ci mboolem këri euh, njabootu sëñ Tuubaa gi dara bu dee rakkam yi tamit li war ci ñoom lépp def na ko kenn sikku ko soxna Astu Gaawaan nee na toog na ba doon magum jëmm jàppoon ne sëñ mënu Sa taalibe sëñ Tuubaa la ndax da leen ko daan wax seen taalibe bàyyi laa laa moom la leen daan wax. kon loolu wayaf mënu koo weesu waaye itam mu waxaat wax ba am solo nee na man Serigne Touba mooy sama waajur te dégg naa ngërëmam waaye man Moustapha jub moo ma doy jub moo ma doy kon loolu itam bokk yi ñu di ko ci bàyyi xel bu baax ndax am na ñoo xam ne ñii xañ na waxuma la sëñ bi du seen waajur dégguñu ngërëmam waaye jàpp nañ ne seen dara seen lépp baax na ba tax lu leen neex def. kon loolu itam war nañu delluwaat ci Cheikh Moustapha ci xam ne kenn mënu koo kawe ci sëriñ Touba waaye nee na moom jub moo ko doy te lu ko doy nag mooy li doy kon loolu itam ñu de ko bàyyi xel bu baax a baax a baax naka noonu itam ak njabootam ku leen yaroon la woon ndax Serigne Cheikh ak sëñ Mbacke man ne bi mu leen di joxe gànnaar loolu itam ñu di ko ci bàyyi xel ndax bari na lu sikk ci yoon wi wala lu lay naqari loo xam ni ku jànge fu mu wërta jànge moo ko waral waye Ahmadou Dieng Asad bim koy bim len di di jox ci ganar daf ne ko joxuma len ngir xam-xam rek ndax ñu len mëna jangal ñu ci rew mi da am loolu gis na ko ci bëgg mu ne ci ñom kon loolu itam ku yor sa dom di yarlo du caagi ne kay bo gis yobbu fa sa dom bu yagge léegi nga am ci loolu neexut kon nit ki ndekete war na tan ñi mi yarlo roye ko ci Cheikh mustafa naka non itam sama wajur moo natali ci mom ndax. xam naa bërëb bii ñu toog tey eh, béréb bu ma am kii la ndax sama waajur daana ma ko dénk nee na ma maag sëñ Ibrahima mii ñoo bokk mennaat ñoo doon jàngandoo alxuraan ñoo bokkoon benn néeg nee na ma ñun ñaar la sëñ Modou Saata téelandoo ñu tari ci Taïf nee na dañ doon weesaloo mu jël piliyaanam teg nee na kay ñetti yoon na ko gàgganti ne ko beqi waatal man mu jox ma këyit ne ma demal bind andi waaye nee ma yii gis naa ko ci moom moo daan jiite jàkka ji gannaaw takkusaan moo jàngale xam-xam bu guddee mu téyel ñi mokkal te booba mooy xalifab sëñ Tuubaa te mooy séddale reer bi boppam nee na menn mag ñëw na ne ko mbàkke reer bi nga séddale sa bopp xam naa joxe woon ko ñu dee ko séddee ndax du la gën a noppal mu ne ko damay bañ xañ ko war a am ak jox ko ko war a am ak jox ko wërta ndax booba njabootu sëñ Tuubaa gi ñu bari seen lépp moom la moo moo ko warlu te koo ko ci jox euh, nit koo dénk dara ñaari lu mere dana ko ca wane kon loolu itam bokk yi daa bokkoon ci matuk Cheikh Mouhamadul Moustapha tem royee ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaye nag ballaloo ko ci yarub Seexuna Ahmadul Xadim tax ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax a baax beneen bi ci des it muy li ñuy wax ak yëg ndax am na ci kenn ci njaboot gi koo xam ne bi amee jafe-jafe kawlax ci tribunal rek dem na ba foofu mu taxaw ji ko maanaam mësul xeebal kenn soxlaam kon loolu itam lu muy la mat a bàyyi xel ci yarub Cheikh Mamadou Sa beneen bi ci des it mooy li alquran waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam wa saawirhum fil amri ku daan diisoo la ndax bi mu doon xalifa daana wax ne su ma juumee mbooloo juum ndax damay diisoo ko amub reer te du réere diineem damay diisoo ko amub reer te du réere diineem ndax boo diisee boo diisoo koo xam ni amul lu mu bàyyi këram xañ na dana la du la wax la war a am lépp faw mu wut loo xam mu bàyyi ci wax bàyyi wàlla xel ci wax ji loo xam ne dana ci mën a fàggulum yóbboo këram waaye nag nee na damay damay diisoo borom xam-xam bu am lu mu jàpp moo tax nee na su juumee mbooloo juum moo tax Cheikh Moustapha mosula juum kon nag loolu itam ñu war cee bàyyiwaat xel bu baax di diisoo euh, ci lépp loo xam ne lii maanaam war naa am beneen bi ci des it mooy li ñuy wax système de communication maanaam ku mënoon a wax ak mbooloo la ku mënoon a wax ak mbooloo la ba tax na nit la woon koo xam ne discours am yi mu bind yëpp discours la yoo xam ne bu ñu ko jàngoon tey day mel ni démb la ko bind ku daan mënoon a wax ak mbooloo la. Euh, sama ba tey ci wàllu liggéey liggéey ko xamoon stratégie liggéey la woon ñu war ko cee bàyyi xel. Cheikh Mahamadou safa itam buñ la ko doon laaj mooy kan man nga ne mooy muttafaqun alayhi boo ko seetee ci wàllu xam-xam mate na ko sëkk jikko ju rafet mate na ko sëkk xam-xam ba mate na ko sëkk waaye xel ma it mate na ko sëkk daana wax ni lépp lu sëñ lépp lu lu fi nit defal sëñ Tuubaa ba mu seexal ba nga koy def maa yow ko ànd. lépp lu faay def bañ seexal rek sëñ Modou Sa nee na ba nga koy defal sëñ Tuubaa maa yow wax nañ ne bi fi ku baax kii door a jógee itam bi nga xamante ne bii maam Thierno ñëw na ne dañ koy yoonal daf ne kër lépp mën naa taxaw ba des njëlli njëlli nañ ma wax nu mu toll ma fay ko nga xam ne njëlli moom kër ga booba noonu la doon doxe nga xam ne ku ñeme woon resp ku responsabilité la ci kër gu toll ni kër sëñ Tuubaa nga am ñeen fukki fukki at képp atte na wax loolu. wax nañ ne la ci kër gi ba mu jeexee booba bàyyi na ay tundoote ay fukki fukk waaye nee nañ ba euh, saa bu jeex rek ñu bojj mel sax andi ca la na ndeke liggéey baax na lool liggéey baax na lool naka noonu itam ku mataloon kóllëre la nga xam ne àddina du ko jàpp wala mbooloo jàpp ko ba mu fàtte kóllëre ku ko daan bàyyi xel la woon loolu itam suñ waajur nettali na ma ne ma bi muy sanc tàyyi fekk seen waajuru nelaw dafa woo ay doomam ne leen seen bàyyi mooma sancaloon Touba Kayel te jigéen ma da ngeen di ñëw Taïf mooy sëñ Mor Seck mi nekk Taïf seen kër gi moo ko rëdd bàyyi ko kon loolu itam mu doonoon koo xam ne kii te booba wax dëgg yàlla fekk na lépp wër ko waaye nag la ma lam ñam daan xool démb ak barki démb fam leen tegoon daawu leen fa tegge kon loolu itam kilifa di ko war a bàyyi xel bu baax a baax ñu war a delluwaat ci njàngalem sëñ Modou Moustapha ci wet googu ah, naka noonu itam bokk na ci li nga xam ne moom lañ war a bàyyi xel ci moom mooy diine jaral gën la lépp Cheikh Moustapha lépp lu mas am def na ko ci diine képp ku ko mas a diis lu jëm ci diine loolu daawu ci am xel ñaar da ko daan def na mu ko mën a loolu liggéey jumaa ji doy na ci firnde naka noonu itam ah, ku xamoon li ko sëñ Touba bàyyeel la yi nag ndax mag nee na bi mu dooroon toog toogaay Sëriñ Touba la daloon yonent bi alayhi salaam ci ba muy door a toog ba bi mu fi door a jóge mu mel ne daa amoon ci mbirum sëñ Modou Moustapha am mag mu ñëw ne ko Mbakke tubaab bi day jéggal na la damaa bëggoon ñi nga xam ne dañu am sikki sàkk nga sant tubaab bi mu wax ak ñoom bu ñu nanguwul mu forcé leen waaye Cheikh Moustapha dafa ree ne ko man li ma yor doole sëñ tubaa la deesu ci tooñ deesu ci fayu des ciy dimbale ma yor doole sëñ tubaa la deesu ci tooñ deesu ci fayu des ciy dimbale kon loolu itam muy lu mat a bàyyi xel loo xam ni euh, maanaam war jamono dana koy laaj saa su ne naka noonu itam bi nga xamante ne bii njabootam gi ñu ci mag jàngi nañ ba ñëw ñi si daa war a xam culture réewam daf ne leen da ngeen di war réew mi dellu siwaat Serigne Cheikh ak sëñ Mbacke Madina defloo na leen ko ne kii na nga jaare Kajoor génn si bawal ne kii na nga jaare si bawal génn siwaat Kajoor nga xam ne ñoom booba itam lim ci jublu mooy am réew bala nga koo mën a yilif da ngay xam seen doxalin xam seen aada te loolu itam Euh, aaday arab yi la woon ndax ñoom li ëpp seeni doom ca baadiyee lañ ko daan yóbbu ñu nàmpal ko ngir ñu xam réew mi kon loolu itam Cheikh Moustapha ku ci amoon ku ci amoon gis-gis bu sori la ku ci amoon xalaat la itam nga xam ne daana ko daana ci farlu saa su ne waaye naka noonu itam nag nit la woon koo xam ne kii daana bàyyi xel boroomam ndax sëñ Abdoulaat dafa wax ne maa ngi tëri gannaaw sëñ Touba lañ ko dégg nga xam sëñ Touba comme daan yar daa woon nelaw waaye Cheikh Moustapha itam wax nañ ne nelaw guddi mësu koo def loolu itam bi mu demee ba ci mujjug dundam bi mu wéradee biñ andi docteur yi ñu seet ko biñ nappee li ñu wax Serigne Cheikh mooy kii amul genn wéradi waaye dafa nelawut bi mu ko laajee Cheikh Moustapha daf na ko ah, sa gaa yi de yàlla jay na leen wax nañ dëgg de ku baax ki bi mu fi jógee léegi ñëw ma jàng bat guddi ñëw ma jàng bat guddi ndax Sëñ Tuubaa daf ne ñaar ku ko bëgg doo biddanti ku bëgg yàlla ak ku bëgg alal. fi mu tubaab du biddanti mukk tubaab bu biddanti moom doo ko gis tubaab bu biddanti doo gis mukk waaye ku bëgg yàlla ak ku bëgg alal waroo biddanti kon sëñ tubaab ñi mu daan yar daawuñ nelaw sëñ ma ndumbe rek wax nañ ne am na ci gan yu ma si fanaan si këram fekk néeg bi ñu tëdd waroon nañ koo xadd waaye gan yi ñëw bi ñëwee bi ñu koy yeexee gis ñu dugaleen ci nii ba ñu fanaan xeddi loo na mag ñu nii bi ci guddi daf bi ñu koy xeddi daf leen bu ñu yeewu nga xam ne ab baax lañu takk ko xeddi néeg bi xaddaat ko te gan ñi yeewuñ ñemewuñ mu yeewu kon loolu moo doonoon yarub mag ñi loolu lépp liñ daan def ci ñoom def ci ñoom farlu goo xam ni fépp fu ñu mën a demati dañ fa mën a nekk luñ gisati danañ ko mën a muñ naka noonu itam Cheikh Moustapha noonu la mënoon a muñe ndax cheikh bi nga xam ne kenn ci cheikh yi bi mu amee jafe-jafe ak doomi baayam bi mu ñëwee wax ko ko daf ne ko li ma nekkee da lay wax boo demee luñ am nang leen ko bàyyee nañu añ ci sa doole di reer ci sa der te loo yor nga bokkoo ñoom nañu añ ci sa doole di reer ci sa der te loo yor bokkoo ñoom te nga bàyyi leen lañ am lii koo ko defal mën koo yilif kon loolu itam ku nekk di ko war a bàyyi xel daana waxit ne koo doonu kilifaam sam nawle la nit boo ko yilif rek sam nawle la te daana wax ne ku la du laaj njël du la laaj masala du la di soxla daana wax ne yomb naa àndal kon loolu itam bokk na ci Euh, xelam mu rafet mi nga xam ne moom la àndoon yee yeew ci ñëpp muy mbeddum teraanga daana wax ñun ñëpp nga soleen ci mbedd mbedd nday mbeddum teraanga moo tax sëñ bay jaxate na ko mbàkk yaa man a yeew gor pinti panta nga ma euh, wax nañ ne itam noonu yi ni la mënoon a ni la tabe woon ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal te tab googu daf koo tàmbalee ci ñi mu bokkal Serigne Touba moo tax fu ne moo mën faa dem am kenn ku ma sa ñew ne ko man de mbacke dama dégg ñu di la tàgg te ma bëgg ci cebok ku déggoon ku déggoon walaf la dañ lay tag ma bëgg ci bok te mënuma wax lu amut mu moñ na ko dégg nga wax togal ne ba jant bi so boba saret xam nañ ne lu ambaloor la saret ak fas mu tokkob saret daf ci la ci wara def lepp boole koku donga ne ko boo ba ag nak bu wacce bagage ba nopi nak ne ko dama ko mayale saret bi ak fas wi kooku bim ko yobbo wax nañ ne mu wacce ba noppi mu ko ah, kon de boo nga santal ma señ bi mu ko déet ndax fi sare doog fasu waye lam ca teg mooy dooma raw da and ak mom rek ñew ci mom nak luñ ma massa wax ci yow deug la kon mbokk momu bim mu del ci señ Modou Sa rek daf ne ko lu ma mas a ko raw luñ ma massa waxit wax gisse ko raw kon nit la won ko xamni bu luma san jox rek nga rus mu melni kon fiñi ñuy nak moy bis bi nga xamni mom lan muy màggalook euh, màggalu sëñ Tuubaa gi ñu tuddee màggalu Daaru Xuddoos teñ nangu ko waaye ñu xam ne bis bi itam bis bi itam bisub bisub sëñ Tuubaa la ñu xam ne màggal gi màggalu sëñ Tuubaa waaye mel ni Cheikh Moustapha euh, ndam li ko ci yàlla defal daa mel ni ña ko fekki wutoon dañ koo xam ba mujj tuddee ko màggalu Daaru Xuddoos Euh, muy bis boo xam ne bi itam Cheikh Moustapha daana wax ne juboo ak boroomam ci ne ku fi jant sooy ci li neex yàlla fenke la fi yéen nga teqali ko ko bàkkaar kon teqali ko bakar nag fu waay jëm ak lu waay di mën a wut looloo ko gën ndax moo lay tax a texe kon nag nit lépp lu koy tax a texe war na caa euh, kon nag mu doon bis boo xam ne bu ñëwee képp koo xam ne Serigne Touba mooy sa kilifa. war góor góorgóorlu ci bis bi mu mel ni nag euh, sama waajaro daana wax ne neexi bët wanoonu Cheikh Moustapha waaye muur la dañ leen ànd ak moom muur la muur nag bu la ci yàlla boolee la cay sab cër mooy nga góor góorlu ca bu baax ba dara bañ la caa rëcc kon ba tax na itam ñi ko sëñ Ahmadou Mokhtar waxi démb kenn ku nekk béréb ba nga nekk nga soññ mbooloo mi ñu góor góorgóorlu te màggal ko na nga xam ne noonu la ko sëriñ bi daan màggale comme ni ko sëriñ Tuubaa waxee ci gàmmu tahsimuhu bi sunnati sëriñ Tuubaa lim gënoon a bëgg mooy alquran ñu njëkke ko ci sant ko kuréel yëpp ak képp kuy ku di ak koo xam ne kii mbirum Cheikh Moustapha mi ngi ci sa ak képp koo xam ne kii mbirum sëriñ Tuubaa mi ngi ci sa xol la la war mooy nga màggale ko alquran ak xasaayit kon nag mu mel ni mbokk mi daf ma waxoon ne ma waxtu bi li ci des bëriwul te kilifa yi toogaay bi yàgg na ñu ngi jéggalu wax ji lépp lu ci jub ci suñu borom la lu ci dëng nag ci seen gàtt àlliw la ak matadik doomu aadama ñi ngi jéggalu kilifa yépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek farjëkki Moustapha su fekkoon da laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawote ña daawaate Moustapha